ñu ñëw tey deux mille vingt quatre mu am une troisième alternance moi je comprends que ay nit bu ñu ñëwee ci ci réew il faut ñu càmbar il faut ñu jubanti man je suis d'accord je souscris je n'ai aucun problème par rapport à ça mais dafa am yoon parce que pendant yow nga arrêté yëpp nga ne yow da ngay càmbar mais tey Sénégal bu ñu dindee la part de la publicité bi nga xam ne euh, état moo koy joxe lu ci bari desatu ci de te ci paaru publicité boobu ku dem ku dem def vérification yu la neex 7TV <laughs> ëppul juróomi structure état yuy liggéey ak ñun ñeneen ñi daan nañu daan liggéey ak man parfois dañ may jox bon de commande ma war a démarrer ma wax dara ci sama émission lu leen neexul ñu retirer ko. arrivé na ma à maintes reprises et ces gens xam nañ seen bopp ñu ngi fii ñenn ñi dañ daan taxaw carrément ne du ñu liggéey ak man wala fu ñu nekkee mu am une campagne de communication ñu war a pub jox médias yi euh, publicité des gens vont se débrouiller pour nous écarter néewal ñu doole on a vécu ça je n'ai jamais rien dit xam nga tax waay waay yow yaa moom sa publicité yaa koy joxe joxoo ma amul problème man tamit boo ma sollicité su ma neexee du ma la couvrir et parfois je donne des directives de ce genre là je à la rédaction telle structure bu leen ko couvrir buy def communication bu fekkee ne nag dafa nekk ci loo xam ne c'est une information d'intérêt national ma def ci sama liggéey te ci loolu laa wékk saa yu président de la république xewlee mu nekkoon Macky Sall mu nekk Bassirou Diomaye tey toutes les activités présidentielles elles sont retransmises en direct sur cette TV toutes les activités d'intérêt national ou activités importantes dans l'agenda institutionnel du Sénégal dañu koy retransmettre yemuñu foofu parti politique bu toll ci ay jafe-jafe mbaa bu toll ci actualité dañuy jël actualité boobu dimbale sénégalais yi ñu seetaan ko waa Pastef yi tey 2019 man maa njëkk a retransmettre seen conférence de presse ba ñu nekkee dans la tourmente mu metti la conférence de presse bu Ousmane ko joxe këram j'étais en direct vous vous imaginez bien Sénégal lañ nekk les hommes politiques sénégalais sont des gens très égoïstes seen bopp rek booy def dara lu leen arrangé wul da ngay subir ay pression def nañ fi xam nga dafa jot ñu wax teg nañ fi def nañ fi interview avec Adji Sarr man on m'a payé de l'argent pour diffuser l'interview ma bañ parce que interview ba bañ koy def fekkeewu ma ko ba ñu koy monter fekkeewu ma ko man xaalis jaraluma yenn yi Pastef mosuñu maa fay 10 francs pourtant dañ daan fay direct par vers la fin mosuñu maa fay 10 francs jël naa seen lien plateforme toutes les déclarations de Ousmane Sonko dama ko daan def il ne me doit nag ñoom ñëpp dama leen tëjil samay plateforme à des moments cruciaux on m'a on m'a on m'a on m'a on m'a mis en mal avec les autorités étatiques naan je fais la propagande et la promotion de Pastef même des membre de d'autres partis politiques dañ ma ciy mere am na si sama portable bi ku ma saaga saaga yu tooy un une personnalité bien identifiée li ma wax weñ bu ci bu ci bu ci dal dee juste parce que jàpp na ne yow tu fait la promotion de de de de certains du loolu man je suis avec tout le monde wax li may wax ni nag waxuma ko pour ñu pour ñu yaakaar ne man il me il ne me doit rien li may def noonu personne na ma me doit rien du tout loolu mooy sama devoir en tant que média mooy sénégalais bi toog këram soxla information ma xam ne kii dafa am information ma jàppale sénégalais boobu ba mu fekk ko ci këram fekk ko ci portable am loolu mooy sama devoir en tant que média man su ma su ma su ma d'accord ak yow war naa war naa jàllale sa information loolu mooy sama su ma d'accordul ak yow tamit loolu moo ma war loolu mooy sama sacerdoce su métier loolu laa def ma acquitté wu muy Pastef muy APR muy parti yépp tous les jours on a différents programmes yoo xam ne ñoom ñépp dañu leen ciy convier léegi lan lañ bëgg man nag Maimouna Ndour Faye nag j'ai une particularité je suis une personne très têtue te man nag damay demee conviction ak ak ngëm-ngëm te conviction ak ngëm-ngëm boobu may demee moo tax tey 7TV nekk un média de référence sénégalais buy waxal yàlla et sénégalais yu bari dañ ma koy témoigner nu sommes un média crédible et objectif ngëm-ngëm boobu may demee ci sama métier moo tax man du ma subir pression financière du ma subir pression politique du ma subir benn pression penal parce que nag métier bi ni ma koy defee xam naa ni ma ko war a defee te maa ngi koy def ni ma ko war a defee te képp ku ma war a jox parole bu lay man tey muy nguur bi fi nekk muy nguur bi fi jóge bu ma waree jox nit parole ma jàpp ne légalement war naa ko jox parole et au plan éditorial dafa ma benn entorse à la règle dama koy jox parole luy dal sama kaw mu dal sama kaw lu ma ci góobe gal ko noonu laa mas a demee mu xañ ma lu bari man palais de la république mosuñ ma branché raakool chaque weer bu dee ñu di ma fayal samay salaire sama baat ca kaw pourtant am na ñu ñu ko fi branchel am na ñuul rëy làmmiñ di jaay nit ñi éthique di tromper nit ñi dañ leen branchel ay raakool di leen fayal seeni salaire chaque weer pendant cinq ans ba ñu ko daggee dugg nañu fu ne cest à dañ mën a wax rek di wax dañ mën a euh, wax bu ñaaw rek di wax wax bu ñaaw man rus naa ci sama confrère may wax ci moom wax bu ñaaw ma mosuma ko def duma ko mas a def mais parfois nag il faut ñu waxante dëgg juróomi structure ñoom ñooy liggéey ak man du doon du doon publicité sax bu bu yomb damay defar ay film du benn du ñaar kii maax moom ñooy monter dañuy toog di monter bu suba teel ay film pour des structures yu am événement ay film ay événement yoo xam ne président de dafay dem premier ministre dafay dem ay organisme ak lu nekk loolu mooy suñu source de revenu principal tu fais des films tu les montes tu fais des bandes annonces tu les diffuses la part de publicité bi nga xam ne day ñëw de manière instantanée motul 30 pour cent ci suñu bilan financier 70 pour cent yëpp production audiovisuelle lañ koy jëlee ñuy defal nit ñi ay offres yu attrayantes di leen euh, euh, euh, defaral contenu bi diffuser leen contenu bi jàppale leen ci ñu vulgariser li nga xam ne moom mooy seen contenu mu doon sous la forme de convention média tey mu doon benn activité boo xam ne boo ko souscrire woon di nga fay 5 millions mbaa 7 millions. ñu signé ak yow convention annuelle quinze vingt cinq trente millions par an alors que sur cinq activités tu aurais pu payer ce la là noonu la ñu dundee moo tax man je suis très libre kenn teewu ma su ma toogee MNF li may wax yépp dama koy assumer lu ma ci góobe gar ko parce que man kenn teewu ma sama ñàkk ak ñàkku samay collaborateur moom la ñuy dundee doog a commencé de 2018 à 2021 ak a metti woon ba 2022 ak a metti woon su ma doful dootuma dof ma wér ci loolu